di ñaanal réew mi yàlla yàlla na fi yàlla def jàmm doolu ñu sutura appel bi ñu yàgg ko fekk teewe ci ay at yu bëree bëri bëri kenn ku ci nekk nga gis sa bopp ba ci yéen ñi yor seen i caméra di ci di ci ñëw déwén ñu fekk leen ci yenn anam maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal sama yaay fu mu nekk yàlla na ko gënal fii mu jóge di ñaanal sama papa mi nga xamante ne bii moom moo fi des suñu borom bàyyi ko fi di gërëm samay mbokk di gërëm samay mag di gërëm samay rakk mais ngërëm gi duma ci def lenn te duma gërëm sama xarit bi toog muy maam Diarra Thiam ñu koy wax Jojo Goloskin ànd ak borom këram ñëw moom nee naa leen circonstances yi boolewuñu dafa nekk nit koo xamante ne bii xam nga àdduna la moo ci jafe reconnaissance te nit bu reconnaissant la envers moom ay nitam tey damay damay damay damay wax que ni du sax bësu wax mais li may wax rek ku santul nit doo sant yàlla te li may wax Adja Fandoy mii ak keneen ak keneen mën na koo seede Griff mii toog aussi mën na maa seede parce que ñun ñëpp ay doomi aadama lañu ñun ñëpp ay nit lañ yoo xamante yu dévoué yu gëm suñu bopp di liggéey mais jëmm jii da cee raw ndax jigéen la gëm na boppam xam na li mu bëgg xam na fi mu koy defee aussi parce que àdduna dafa am loo xamante ne moo am tey wax neex na trop mais ki ngay waxal nga xam ko mooy dàq te kii bu ñuy wax ci moom mën nañoo wax ci moom parce que lan moo tax dañ koo xam xam lu mu bëgg xam lu muy def xam ni mu koy defee nag moom newul kenn yàlla mu la nuyu te gis ko jaara jëmmam ji gisoo leen ko fépp du weesoo bitigam bee ngeen gis ko mu nekk ci lu mu nekk moom lan lay xaar ñaata mu ne la livraison fan moom loolu lay xaar ak produit bu baax mu dem jëndal la ko indil la ko Thaïlande la jógee démb la ñëw xam nga mënoon naa toog ne damaa mm. te boobaa kenn du ko dara mais daa ñëw ànd ak borom këram ñu ko faal ñëw toog uniquement ànd ak man ci bés aw ma leneen lu dul bis Seydina Limaamu bi ku am leneen mën nga jël man bés bii laa am te damay sant nag defuma leneen lu dul sant xale bu ndaw laa mais damaa gëm sama bopp gëm sama liggéey gëm sama li samay ñaanu ay waajur. loolu mën a wax bi. appel ñu si mën a wax mooy li ngeen gis ni cant mënul weesu lu ñu dekk nekk di ko def mooy ñëpp ñëw ñu toog nekk maa toog waxtaan kaf fooree tudd tudd baatu yàlla yi lekk ba suur naan ba màndi nekk ak suñuy am di jàmm parce que li yombul nga nga wax ñëpp ñëw ñi nga xam leen ñi xamoo leen ku ci nekk yaa ngi toog te mën nañ fee toog ba heure bu tasee ba loolu sant yàlla la man lu may def damay sant sama borom mais sant bu may sant sama ndey laa koy sante ndax lii yëpp moom fekkewul de mais xam naa ne bu ñëwaatoon du ma defar sama toogaay ndax toogoon nee lay toogee di ma xool ma toogee ni ma toogee su ma santee nag ñëpp damay sant Serigne Ousseynou Laye mi nga xamante ne bi lu ma mën mooma ndax nit ku amul wéeruwaay da nga yomb ba bax te Cherif Ousseynou Laye ku ko xamoon cig njàmbaar ci bëgg lu baax ci bëgg lu rafet ah ku ko xool ci loolu ngay nekk te man ci loolu laa nekk te du ma ci jug nag du ma wax lu ñaaw du ma ko wax du ma ko def te du ma ko digal nit man du ma ànd ak sax non sala xalaatuma ko man ñi ngi ma gisal nii gisoo leen fenn kii sëy la xam toogkaay bi mu toog nii ci la toog te nit ñi ma fi fekk si ñëpp ay nit lañ ñoo xamante ne bii vraiment ku ci nekk yaa ngi toog ànd ak respect ak discipline te loolu kese la ñuy te loolu kese nit di di sàkku bés bi daal aw ma lu ma ciy wax lu spécial lu dul maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla mais mbooloo mi moo bari yéen ñii daaw bi ngeen ñëwee duggoo leen suuf ngeen toog lu dëgg te kenn ku ci nekk bëgg nga ci loo nekk mu yaatu ba ku ne xaj ci loolu kese la à part loolu amul leneen ndax fii ci yoofu la bokk nga fii mënoo ko génn ci yoof man génnu ma man yoof laa dëkk sama papa Baye Dame Samb yoof la dëkk méngeen ci taaxu Alaaji Maalik bu ne woon na ko na ñibbi Yoff laay toog sama yaay moo dëkk da ngay man duma ko dégg sax dégguma li ma nit ñi di wax man lan ci liggéey bi ma ne ci yoonu siraatal mustaqiim ci jikko ak jëf mooy fexe ba ku ma sëkkanteel muy sama nawle nga naw ma sama jikko parce que du ma wax nit lu ñaaw du ma yóbbante jaw te duma ma toog fu ñu yàqee doomu aadama te jikko yooyu la ñuy sàmmee ci jullit ay jullit lañ dëgg rek la yàlla bëgg ku ne am nga tarixa waaye ñun li ñu nekk diine la te Seydina Limaamu du ay caaxaan te caaxaanewuñu ko ku bëgg caaxaan mën nga dem xool leneen ñu caaxaanuñu yi fi àdduna nag dafa am te kenn mënu koo bañ nit dinañ lekk dinañ naan dinañ sol yére dinañu kaf dinañu reetaan su weesoo loolu amul leneen. non mais xam nga nañ ko si jàmm ak salaam réew mi jàmm rek moo fi xaj fii réew jàmm la ku mu neex nag mën ngaa am lu ne sa xol nga génnee ko nga wax ko loolu kenn terew ko mais lépp nañ koy def ci discipline ci yar ak teggin parce que ci loolu lañ ñu xam Sénégal dëkku teranga la ñun xaj ñu ci guerre xaj ñu ci dara parce que mën ñoo am cinq kër ñeenti saal bëgg na dañuy xeex buñ ko waree tabaxaar xam nga day metti Sénégal benn bopp la nañu toog di waxtaan kilifa yi comprendre xale yi parce que jeunes yi dañoo sonn jeunes yi amuñu ay liggéey mais ku ci nekk jigéen boo ci gis soo ba ngoon jot mi ngi xool di xool lu mu am di xool lu mu def pour ut lu mu amal boppam parce que lii ngeen fi gis nii ay caaxaan defu ko liggéeyee koy def ak gëm sa bopp am taxawaay kii ngeen gis nii mu taxaw xam nga tax ma koy may jël ci moom référence parce que dafa gëm boppam jigéen da ngay gëm sa bopp am loo amal sa bopp nga PDG neex na ñu la koy wax mais nga koy jëfee moo ëpp solo kuy employé plus de trente e quelques personnes wala quarante bay jëm cent ak ah kooku réew mi war na koo delloo njukkal du dañuy sant nit pour loolu de dañ koy gërëm parce que moom ci loolu la nekk mu ngi employé ay doomu jàmbur yoo xamante ne bii ñu ngi xëy di fayeeku di tedd ci jëmmam ji kon kooku lu ko nit mën a waxal da nga naan kaan jërëjëf après la ñu nekk de mais occasion bu jotee da ngay sant nit ndax ku santul nit doo sant yàlla yéen presse en ligne bi tamit kenn amul seen fay parce que da ngeen di bàyyi seen yitte yëpp ngeen ñëwal nit yi toog suba ba ngoon jot même du ngeen am lu ngeen neex mais da di toog parce que loolu loolu mooy seen liggéey lool loolu loolu loolu la leen yàlla jagleel aussi ñun tamit des fois bu leen di ñaan wala dara du dara dañuy bëgg rek muy rafet parce que tey bu bu wax ñaawee du wax ba peut-être nañ koy nañ koy jëfee mooy tax te ñun ñëpp ay frère lañu parce que ñun bu weesoo caméra yi bu fay dañuy kaf dañuy reetaan ku ci nekk da ngay wax sa morom lu baax parce que loolu la ñu xamante ay nit ngeen am ngeen ay yaay am ngeen ay papa ñun tamit pareillement te ku ci nekk boo sañoon kenn du wax sa waajur lu ñaaw ku ci sañoon ci yéen kenn du wax sa yaay lu ñaaw ku ci sañoon ci yéen kenn du wax sa rakk lu ñaaw man jàmm ak salaam ma sikk ak yéen moom laa sikk ak ku yeewu ci réew mi parce que loolu laa xam maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di gërëm samay rakk di gërëm samay mag di gërëm xale yi nga xam ne ñoom la ma yàlla booleel ñuy ñëw si sama mbir di ci jàpp di ci sonn du ma lim kenn mais ku lim da ngay juum maa ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di leen wax que ni sedd appelu Seydina Limamou ñun ñëpp ñoo ko moom ndax woote yàlla la ku ci ñëw sa bopp nga ñëw sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp wasalaam faa dem. yéen man jaaxal ngeen bu ñu nee salaamaaleykum ngeen ngeen ngeen génn seen taatu bataay rek génn. yéen yéen a lañ leen sant yàlla. waaye dama laa gëj lu nga ñëw sama Kazu Rajab bi. ñëwoon nag yow suxoor nga de. barke Serigne Saliou ñëw naa gisuma la. bilaay dama la doon bañ a déranger mais guy gi maak moom ñoo doon ko ne ñëw naa. Ah. bilaay Kazu Rajab bi félicitation nekkoon na trop. merci mais bëri na coow nag. waaye coow li nag sant Serigne Fallou rek. Ah. ku baas am coow. ku def lu baax am coow kuy sant da ngay am coow. dëgg la Cheikh Béthio ma gënoon a fort te da daan am coow. waaw mais mais déggoo ñu naan déggoo kii li mu woyoon. waaw euh, euh, nuyoo euh, doxal te sant ko nag kooku li mu woyoon daan xaw ma sax xamatuma sax lu mu mooy <laughs> dina ma rey mais mais au fait loolu est-ce que du yàq sa diggante ak dara ak ñoom Zane Mbaye ak keneen bi surtout borom rasta yi moom. waaw boobu lañ si gën a coow donc non ay kii dañuy waxtaan kii dañuy waxtaan loolu est-ce que du yàq dara seen diggante. la ñuy def. nga ñëw ci appelu nga ñëw ci appelu ki nga xamante ne mooy yaa Awa. ak yaa Awa ci mën a wax. waaw nekk ku baax rek ndeysaan doon jàmbaar di def li maam Ndiaye di def ndax dama koy gis ndeysaan bu euh, kas kii jotee nu mu tuddati appel day takku ba dëgër di berneel gan yi di def lu baax man tamit may def lu baax. gis ko bu nekk nit ku baax moo tax genre yi bu ñu wootee da nga ciy sawar pour d' accord nga ni maam li maanaam da nga ko géntoon est loolu moom du ma ci wax. ma aaye tey de. billaay du ma ci wax yow wuy ma dama defal na wax fa gént naa ko leer naa leerul sénégalais yaa ngi critiqué ñoom la rek ñoom du ñu gis ku baax du nu dégg ku baax man damaa baax damay gis ku baax di dégg ku baax ñoom bu ñu bu ñu d' baax na bu ñu d' accord baax la essentiel daal laay laay rek laay topp. si loo ne yow. waaw ça va yaa rek laay topp jamono ji laajee. waaw waaw. ah wóor nañu. du ma ko defar nii laa a garaaw a garaaw. Ah, rek tey tey <laughs>

yéen ci jàmm baana yaaw xaaral ma xëcc la <laughs> sax ay waay nañu ci yaa Thank you. No jodas. Bueno, bueno.